taxaw leen foofu xaar ma ma wàcc ñu ngi fi no non non demuñu de na bu kenn dem fen bu kenn dem fen que personne ne quitte ici sans procès ñoom bu ñuy soxlaa nañu bind convocation ñu ñëw sans avocat bu kenn génn fii vous n'avez fait rien d'illégal pour dem fenn benn police il y a des droits dans ce pays là waaw nañ bind convocation ngeen taxaw mu avocat ñu dem def leen lu ñu leen di leen di yóbboo fenn bul kenn dem fenn la wax taxaw leen fii xaar leen ok man négocié wu ma kenn man waxuma ak ñoom ok parce que daf ma lu may négocier encore internet bi yéen a may déglu yéen ñëpp àdduna bi ok maa ngi nii suma gaale taxaw booy police yaa ngi fi encore di ma agressé waat je parle je parle avec le gouvernement and I'm this time je parle anglais parce que I'm am talking to the whole world the police of my country is here harassing me man and I don't do nothing to them They over here. You can see my whole staff over here. All the police cars are over here. They say they're gonna they wanna talk to me. I don't have nothing to talk to them about. ok man awma wax ak ñoom su ma suñu bëggee wax nañ dem wax ak ku ñu xam dana leen porter plainte sama suba ci procureur laa dem dama ay commissariat man bu ñu bu kenn yéen bu kenn génn fii di dem ci ay police d' accord bu leen bëggee jàpp nañ ñëw sama kër gi jël ma ba pare ana booy fee yëpp bul dem fenn toogal fii buñ la soxlaa nañu ñëw ñun defuñ leen ñu ñu leen di yóbbu ay police buñ bëggee kuñ jàpp am nañ ñun jàpp ci biir town bi man qu'est-ce qu'on a fait pour ñoom ñu ñuy xaraas nii ok qu'est-ce qu'on a fait yow qu'est-ce qu'on a fait what do we do amu man man deserve lu ma ci town bi man defuma Sénégal loo xam te ni you know war nañ ma def lii man man li ma defal Sénégal commissaire bi ma ko oo ko mu ñëw na ko mu ñëw fii suma gàlle fii la taxawoon léegi dama na ko mu ñëwaat sama ku fi dugg danga ko rëcc gon laa lay ok ñoom sax man li ma defal sama réew ci àdduna bi deserve ma lii man fii rek laa ñëw ñu may toroxal hmm? waaw bu bu dem ñu lay ñu lay jaay ñàkk fayda wës ñi xam ay ba def dugg suñu town bi yëpp di nekk si biir bi lijjanti wuñ ko ñu ñëw ma lijjanti quest que j'ai fait hmm? laa def loolu su dëkk ngeen wax ma loolu quoi hmm? pour mes amis français tout le monde qui m'écoute de l'extérieur qui parle français je suis désolé hier c'était en wolof il fallait que je parle en wolof je suis là devant chez moi aujourd'hui encore la police sont revenus encore et harceler mes jeunes et ma famille veulent amener tout on n'a rien fait nous parce qu'ils nous demandent de l'argent toujours c'est des corrompus hmm? et je vais pas céder à des affaires comme ça parce que moi j'ai fait le tour du monde je peux pas venir dans un quoi You know what I'm saying? On n'a rien fait que de créer de l'emploi dans le pays. Les jeunes veulent travailler, ils ont besoin du travail, d'accord Tout le monde, rien ne, rien ne marche dans ce pays Les gens ne travaillent pas. Nous, on revient de chez nous, on, on crée de l'emploi, on participe sur ce que le gouvernement est en train de faire dans le côté privé. Au lieu de nous encourager, ils viennent ici nous harceler. Pour les gars qui m'appellent sur le truc là, laisse je suis en You know what I'm saying? And for everybody that's speaking English to listening to me, this is what's happening in Senegal right now, in my home country. Okay? I'm having lunch with some investors that's coming from all London to come here to help with the farm. And the police coming in my house again. Again. Again, in my fucking house, man. for no reason no paperwork anything nothing whatsoever they bring here to to show that they should be taken sama boy yëpp ñu leen di jàpp di yóbbu police pourquoi ñu ñëw fii di sama buntu kër di fa àbb ay big ak ay big ah policiers yi ñëw sa kër amuñu sax big buñ bindee mais c'est pas sérieux ça qu'est-ce que sa veut dire ça ah c'est pas sérieux ça toog leen fii xaar leen naa ñu dem ñëwaat nañ dem def fu leen neex nañ dem indi ay contingent bu leen neex ñu ñëw ñëw fii danañ ma fekk fi d'accord moi je suis pas n'importe qui dans ce bu ñu ma xamul man xam naa suma bopp dañ leen a yónni pour ñu ñëw ci man dañ ma fekk fii hmm? senegal kenn mënu ma fi xum bu ndoxatal you know what I'm saying this is my own country I travel all over the world I do so much all over the world I come here and help young people I do everything that I can do in farming I do everything in employment this is a village I don't even live in the car you understand me hmm? nan ñëw maa ngi wàcc maa ngi wàcc ci suuf foofu viens ngi wàcc ci suuf kër gi foofu Je suis là chez moi avec les jeunes investisseurs, lui qui vient de Londres là. Hein? D'accord Pour investir aux ferme Ça va toi non. Tout va bien euh, Tu as vu, tu venu dans un moment où les gens me fatiguent ici là. Hein? Tu viens investir, ils me fatiguent quoi. Hein? D'accord Je suis là chez moi, chez moi. Maison là, j'ai acheté moi-même, j'ai construit chez moi. I I I I take care of this place for me man maa ko def kër gi maa ko tabaxal sama bopp te sàccu ma ko j'ai rien volé moi j'ai rien fait d'illégal dans le monde entier tout ce que j'ai fait j'ai travaillé d'accord ils viennent chez moi m'agresser encore ils sont là devant chez moi encore ok ils n'ont qu'à venir rentrer ici wallahi ils vont regretter ça ah bul dem benn police booy mais lu ñuy leeral amul lu ñuy leeral ñun defuñu lu ñuy leeral ñu lu lëndëm bay leeral xanaa balaa ngaa leeral nga def lu lëndëm waaw d' accord mais pourquoi mais bu ñu waxtaan nañu waxtaan fii pourquoi ngeen dem ay ay ay commissariat d' accord ngeen dem foofu say di génne yeneen affaire avocat laay wut ngeen dem wax ak ñoom sama staff kenn du fi génn sama am sans sama avocat ñëw gérer loolu man du may dem foofu di bindante ak ñoom je vais euh, voir le directement boo yéen ma fi toog bu que personne ne sorte d'ici d'accord et je veux pas les voir chez moi bu ñëwee bàyyi leen xaj yi seen kaw you understand yes yeah nobody go all Chris il faut appeler Chris hmm? vous voyez c'est ce qui se passe ici chez nous au Sénégal dans mon pays dans mon la police est là encore devant chez moi il ils veulent embarquer tout mon staff et venir dans ma maison rentrer dans ma maison Hein? Si on rentre dans cette maison aujourd'hui, vous allez voir des cadavres. Je vous l'assure. Okay? You know, this only can happen in your country, you know. You know, fa nga dëkk doo fa nekk dara. Loolu mooy dëgg quoi. mu koy def live parce que adduna bi je le prends en témoin fii c'est des ok boo ko deful fii dañoo di la agressé fii xam nga après dañuy def beneen histoire la joxe yaa ngi dégg ah ñun yow ñoo nekk démb tool bu ñuy woo dañuy ñëw dañuy sonal ñu jóge tool yi di ñëw ñun liggéey lañ fi nekkee nekk fi leen bu ñu bëgg ku ñu arrangé mën nañ dem dem nañ dem jël jël ñuy sàcc town bi fii meen lu def leen neex mais man def ma lu ñu may songee fii booy man sama alal dama ko liggéey ah li ma am yëpp dama ko xeex kenn joxuma dama commencé apprenti maçon laa commencé ci dëkk bi apprenti fucking maçon laa commencé fii ok fii gas gas laa fi nekkee woon ok apprenti maçon laa commencé ci town bi ba am ay milliards maa ko job kenn joxuma ko you understand me ok nañ dem lijjanti seen sàcckat yi nekk ci town bi fii di sàcc alal réew mi ku ci jël avion bitim réew fii dem ci bitim réew danga xam man ku ma nekk voilà voilà politiciens yi fi nekk fii di wax maa ngi ñoom bu ñu eggee aéroport ñu xam kan mooy kan hmm? booy politiciens yi policiers yi nga xam ne tekk wuñu dara ah di ñëw suma kër di ma agressé loolu fu ñu ko teg man États-Unis sax ñi ñu ma def li di ma ko def biir Sénégal waaye pourquoi hmm? on a rien fait nous je suis là en train de recevoir des gens ils ici ils veulent me voir je dis non je veux pas les recevoir je veux pas parler avec le commandant je pas parler avec le commissaire Je ne veux pas les voir. Après, maintenant, ils veulent embarquer toute ma maison. Pourquoi hein? Qu'est-ce qu'on a fait C'est en crime d'être Sénégalais aujourd'hui. Hein Il n'y a rien chez moi ici, nous On ne fait rien ici, on ne fait que ah, Ma maison est là, moi-même, moi je l'ai construite de mon propre argent, qui m'est légal. D'accord Pourquoi ils, vont, ils vont voir chercher les de ce pays-là Ils veulent me pousser à bout, laisse-leur venir. Thank you. Bonne journée. Je vous, je vous tiens au courant de ce qui va se passer. Je vais vous